والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين على آله وصحبه ذو الرضوان والتمكين تينا وقت أنا جينا بنيو سافكو شيء نمبر ليال أجر ما أنا أسمع كلام جينا كذي لني تدي رمباي دوما آدم نقول يالله بيندي سايو خير زنا أم يس كخلم ساي غونتي زنا أم لين يس كخلم waaye li tax nit fàttali ko war muy bañ a nuuru bu baax a baax ci yenn mbir yi bay fàtte sunu borom fi mu jëm ak lam fa nar dajal ëllëg ak lam fa nar fekk moo tax waaye métit bi ak li muy xew ak ni ñu koy doxalee yaatu na lool ab tooñkat nag dana dem ba tooñ waajuramu jigéen dem ba tooñ baayam dem ba tooñ ay mbokkam te du ci yëg dara loolu nag tàmm tooñ moo koy sabab kon li ñuy tuddee an namimat moom la wolof daan ràmbaaj ba tey olof baat bu ko waxee mën na ko tuddee nit waaye danaan ko ab ràmbaajkat la Sëriñ Tuubaa nag mi nga xam ne ci biir Jawharu Nafis ne saa yoo jëlee wax nettali ko ci anam boo xam ne day yàq nee na boo ko yëgee ak boo ko yëgut ab ràmbaccan la sëriñ Suhayb ma ngay wax ne lijjoo di bon bon bon ràmbaaj ko gën a bon te fanweeri njaalo nee nañ benn jëw moo ko gën a bon fanweeri njaalo te njaalo mani yu boobu di toq di bàyyi ko ci sa jàpp sa sirit yëpp nga di ko yëg man yu boobu di toq ay mindeef yi mindeef lañ te mindeef mu ci nekk laataa muy dugg ci sa jëmm yaakaaru ko indi ci yow yaakaar ne di ko denc ci dencukaay yi yàlla gërëm ngir bu ëllëgee ñoom ci àddina man a mucc ay waaye ba ëllëgee yomal xiyaamee mu bokk ci ñi nga xam ne danañ fa te dañu dañu am teraan dañuy am kersa lool wax nañu ne ñenn ci gëstukat kat yi a mag yi diggante boobu malaayka yi lay yek yi lay top dañuy am kess lool dañuy rus lool ci mën yu di top te teggul ci yoon ba ñom sax ñeneen dañu danañ jëxam ay yoon yoon yoon ndax ñom buñu sañoon mën yu bii génn mu doon nit nit ko xamne xamna ñu nañ nañ ko ci yoon bu ëllëgé nit koku doon ko amal njëriñ lislaam ndax ñoom it dañuy and ci lool di tuddu yalla suñu borom garab yi di meñ amna ci malaika yi yoo ñetti garab yi mooy seen liggéey ak li ñu ji ci suuf si mu sax am na ji malaayka yoo xam ne jigéen ñi toll diggante rek mu leen tax a jóg di xool la ca seen biir biir lay tax mu yéwén ba mën a ñëw ci àddina gën kaa mucc mucc ayib man yi biit ca lañ ko tàmbalee noonu rek ndax doomu aadama mooy ki xeeb boppam waaye yàlla fonk na ko lool na muy xeebee bopp nag mooy yenn xeetu mooy yàlla yure yi nga xam ne benn woyofu ci te njaaloo ci la bokk ak nuñ ko mën a rafetalee rek ak nuñ la ko mën a xemmeemalee rek xamal ne nim ñaawe woon ci jamono bu yàggoon noonu la wéyee di ñaaw ba tey bu fekkoon lu luñ mën a dem ba mu yàgg di ko def la insha allah alquran danañu ko wax wala yonent bi danañu ko wax waaye it Sëriñ Tuubaa danañu ko wax waaye xam guñ xam ne du rafet te du jekk te du jaaru day wéy di ñaaw moo waral bàkkaar boobu mu doon luñ diisal kon duma ci sori loolu ndax xay na daa làmboo li may wax waaye dañ ne li jëw di bon bon bon rambaaj ko gën a bon rambaaj nag mooy nit ki dox ci diggante nit ñi di toxal ay wax ci anam gu yàq seen diggante ci kabaa'ir yi la bokk mas ñoo dégg suñ saa yu di wax naan shahadatu zuur yi minal kabaa'ir yi fee seere aw fen ci bàkkaar yu mag yi la bokk kabaa'ir nag boo ko déggee mooy bàkkaar yi nga xam ne tuub képp koy tax yàlla jégal ko tuub da ci am bàkkaar yoo xam ne boo ko xasee song da lay tëj ndeyjoor ak càmmoñ kanam ak ginnaaw kaw ak suuf man xëy du tëj tëjul woo xam ne lépp luy tegtale yërmande yàlla ak xéewalu yàlla da lay sori li ñu naan laanatullaahi ak niqmatullaahi da lay jege te benn baaxu ci doomu aadama jigu ko ndax yow yaa soril sa bopp malaayka yi yàlla yi nga xam ne ku ñu jege ngay am ndimbal di am tawfeex ak ginne yu baax yi nga xam ne ku ñu jege ngay am ndimbal di am tawfeex yaa leen sori sa jëmm ndax yaa def yenn yaa sori yaa song yenn bàkkaar yi ndax ñoom mënuñoo taxaw ak doomu aadama bi koy def mënuñu koo jege boo déggoon ci wane wi taxal sa bopp yenn sobe yi doomu aadama yi xàmmee xet gu neex ak xet gu naqari duñ la gaaw a jege noonu rek la malaayka yi di doxalee ak ñun noonu rek la jinne yu baax yi di ak ñun kon rambaaj ci bàkkaar yi mag yi la bokk rambaaj nag tax na bàyyi bàyyi doom wala doom bàyyi bàyyi waaye tax na yaay bàyyi doom waaye tax na doom it bàyyi yaay rambaaj tasaare na ay bokk ba ku nekk xool foo jëm nga féete fa rambaaj génnee na kër ay nit ñoo xam ne ñoo bokk ndey ak baay kenn bëggatu bëggatu gis sa moroom rambaaj tax na lislaam jii ñu nekk am na diir boo xam ne ñaar ñu bokk nekk ci genn kër dem ba doon ay kilifa kenn ka di jigéen kenn ka di góor ku ci nekk am mbooloo moo àndal te ñëpp di ay kilifa ñu jàmmaarloo ñoom seen biir di xeex xeex bu méttee méttee xeex ba ñu ngi ko tàmbalee ci waxtu fajar daanaka boori tisbaar ñaari waxtu la xeex bay doo a jeex ay bakkan yu bëree bëree bëree bëree tëdd ñu ci bëri ñu ñu naan ashhadu a laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah bari na ci ñoo xam ne sax mokkal nañ alquran daan fanaane julli gi di ko julli daan def santaane yàlla yu bëree bëri rambaaj jaar na ci diggante yi ma ba indi musiba mu rëy ci lislaam ba ñu bëree bëri tëdd dem tudd ci seen biir bàmmeel xam naa ci ñaari saxaaba yu ten yoo xam ne Sëriñ Tuubaa mi ngi leen di tudd lu bëree bëri ci biir xasida yi eh, tudd bi boo xam ne yéeme na kenn ci ma ngeen koo xam mën naa koo xam muy Zubayr ibn al-Awwam ak Talhat ibn Ubaydillah xew-xew bii moo leen jëlee ci àddina te ab rambaajkat moo fa jaar àddina daana xëy bis musiba mu rëy xew kenn amatul jàmm ñu tëj gone yi ci biir kër yi tëj jigéen ñi ñenn ñi rek benn benn benn rek ñooy ñooy gën te fekk na ab rambaajkat moo fa jaar kon ab barke wuti mbir barkewuti mbir mukk te moo ne buy wax la muy wax day yi saa sax mën na koo bàyyi bañ a bàyyi bañ a bàyyi xel ba musiba mu rëy xew moo tax di ngeen nettale nit mu dem wax ko feneen loolu indi jiyee ju rëy nga ne xee man de wax dëgg yàlla su ma xamoon ne lii nii koy nii la koy nii du ma ko ko waxee ne yi saa it nga tasaare waxi jàmbur fekk na yow rambaajkat bi la nga ci jublu mooy dagg ci wax ji dara loo xam ne soo ko joxee nit ñi ñu déglu ko dañuy yaakaar ne wax ji nii la ko waxee fekk na déedéet wax ji daa amoon ab jublu ndax wax man nga cee lëjalee nit ci àddinaam ndax am na nooy jëlee waxam nettali ko dara dootul baax ndax nit su tàmbalee wax te daanee la gut loo yóbbu ci ay waxam tooñ nga ko سني بورم حماز مشاء بنميم مناع للخير معتد نسيم خملنا يو يونتي صلى الله عليه وسلم موي تنا ديف سب اندو كي ماي بغا كو خملي داي جو جو كات لا سي بتم داي دوخ سي اك رامباج غودي اك بتيك صبح اك غور على لام موم كين مون دا فخ مو بوك كو يو لپ لو يالا سانتاني سي نيكاي نيك جالغاتي سي لاي بوك بكار لوم سي ام ديو moytu ko def sa àndandoo ma nga tàmbale nag wala tuti kulla xallaaf foo fekk ab rambaajkat day bari waat lool te day waat buy waat ñaari pegg gémmiñ day day sori lool day xàcc fu sori di waat rek mu ne nag yow yonente bi moytul ku mel noonu ndax ku xeewu lay doon ci yàlla ku mën a sikkal nit ñi ci ay bëtam la waaye di dox ci ak yàq ak alalam nag nangu ko seq kenn te ñeme bàkkaar bi loolu جلن جابر بن عبد الله مجلت ينتف صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانته نيت سي واخ يوب مي يغ مو غيس خول واخ امنا نكاي ديغ ولا ديغو جو نينا لا يوب مي ديغو تم اللي باي واخ يو خامل نكو رتل مانا غير يال فام لا يملو تي واخ جي نان فا يم فام لا يملو تي واخ جي نان كيم نينا بوجو بوجو بوجو سيد كوم جي كوم جي بوكو سيد jëlee nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam jataay yëpp rek am nañ kóolute jataay yëpp am nañ kóolute maanaam am na lu ñu ko war a sàmm ba mu des ñetti jataay bépp jataay bu ñu la woon ne la ah yow de mënoo ñàkk ci jataay bi xamal ne jataay boobee la ñu fay wax buñ la ko yóbbu loowul fend bu ko fa yóbbu ñu la waxee ne buñ la mayul nga nettali ko fenn bu ko fa nettali képp koo xam ne it bu ko déggee mën naa jur ak yàq wala mën na jaa indi ay musiba bu mu kon jataay yi am nañ ay kóolute almajaalisu bil amaana booy woo nit it na la wóor ne kii ku am kóolute la ku am lu muy jomb la waaye ko am lu muy euh, seet ci ay jëflante ak i jëfam ak yoo xam la maanaam na doon koo xam daal mën naa denc secret loolu moom balaa balaa ngaa woo kenn ci sa jataay na nga koy xool ci moom bu baax ba mu des ñetti jataay yi ñetti jataay yi moom buñ la ca woowee boo jógee reeteet ko na nga mel ne am picc yuuxul ñëpp dégg boobu rambaaj araamul du rambaaj sax nag mooy nga toog ci ñu ne diw ñu ngi koy pexeel bëgg koo rey jotaay boobu boo jógee nag ko rey xel mooy saf ki tamit xaram aw farjun xaram wala jotaay boo xam ne ñu ngi koy pexeel jigéen bëgg koo indil ay musiba ba def loo ko bàkkaar boo xam ne suñu borom gërëmu ko wala nit koo xam ne dafa toog ci jotaay mu gis ne jotaay boobu ak jigéen a nga ca joo xam ne fay nañ ko nangam ci xaalis ne ko diw lañ soxla woon rek nga yàqal ko àddinaam te nga jaare ko ci bàkkaaru njaaloo bari nañu ñu ko def fii ci réew mi bari na joo xam ne mujj nañoo ragal lool li ñuy génn sax bariwul ndax lan lu mel noonu am na koo xam ne fexe nañ ba ne ko ba may ko lu mu génnee réew mi ba muy génn réew mi mu jaar ci barab bi nga xam ne nii kuy génn réew mi da fa jaar ñu boole ko ku ko war a taxaw war koo saytu te kooku di jigéen mu defal ko ñam woo xam ne nii sotti na ca loo xam ne bu ko naanee ay silitam dana yëngatu jëm ci bànneex te du ko mën a tayati dootu am sago mën koo téye mbaa sax dana xaw a tàqalikoo ak sagom tuuti ba mu ko ko joxee mu xam ne fekk fukki minute ak juróom loola dana sori ci moom ba mu toogee waxtu woowu ñëw col col bu bon ñëw ne da koy dindil desidu xéewal ya te fam ko ko tegaloon ànd koog nag aw yaramam xaw koo laal ba musiba mu rëy fekk ko ca kooku daana wax ñu bari di ko déglu waaye ba mu génnee ñëw fekk na loolee mu doon def ci biir néegu lépp jël nañ ko denc ko ci ab jumtukaay ba kaw ka ka doon ka bëggoon a xam ci moom loolu yor ay jumtukaay yu mu ko mën a dencee ba mu demee ba dikk mu woo ko ba mu ñëw ne ko yow de ku ñuy déglu nga ku am baat ci réew mi donte jiituwoo réew waaye nag def nga loo xam ne lu lu lu bett la daal ko xooy ne ko jërul wax ji di sori dal ko koy taalal mu setan bopam setan lam doon def lepp amna ay kaddu ju mu ne len rek moy moo def moy fexel ba ku ku def lu melni waratu taw kon bu lu waxat ma bu te ñàkk bañ a wax nangam bu ci waxat def nañ ko ay nit nit te dañ koy jaay ci go xam ab yàqkat la rek yii sa mu raxu njabar an njabar yii mu rax ba koko danaka moom aw fan sagam dootu ko fekkee dara ci gàttal kon fay mu xaram ak deret yu ñuy tuur jataay boobu loo ci fekkee boo jógee na nga ko refet te demal ci diw ne ko ah mbéy boo nga daw de mbéy boo nga wattandi ko mbéy nga def nangam te nga wax ko li xew beneen jataay bi ci def mooy jataay boo toog boo xam ne ñu ngay jël bëgg a jël alali jàmbur na ko refet kon ñett jataay yi boo ci fekkee na nga def sa kéemtalaay kàtt ndax am na ñoo xam ne xëccoo daraja rek jaral na leen ñàkkal doomu aadama xëccoo daraja xëccoo njëriñal àddina jaral na leen yàqal doomu aadama boo xam ne mi ngi ci njiw mi ngi ci yoon siraatul mustaqim mi ngi def li ko war jëlee nañ ci xammaam mu ne toogoon nañ te ko ñu wax Xuzayfa ñu ne ko waa ji de ñu am ku ñu ko indil ne ko kii de day def lu xew rek mu daan wax ko Seydina Usmaan ibn Affan ngóor si day def lu xew lu mu dégg rek dem nettali ko Seydina Usmaan ibn Affan Xosayfa ab sahaba la nek ko na naa de yonent bi di wax ne la yadkhulu jannata khattat la yadkhulu jannata khattat manam ab rambaajkat du al janna waaye lam ci jublu moy ko xamne day netali wax ci anam gu yaq anam gu yaq nga netali ko nga netali wax nga deg ko tok fe di wax lu lu baax won ci lu baax rek nga dem albeuti wax ji wax rek na nen ñu ko xam nañ ko waaye ku ko tàmm dalay jaxal loolu ni ñu koy defee yàlla nañ ko gën a umpale ñu nit yàlla nañ ko umpale euh, bi ci des mooy Abu Hurayra moom moo nettali ne yonent moo dégg moo dégg ci nopp boppam yonent bi di wax ne ki gën a bon ci nit ñi ki gën a bon ki gën a yées ci nit ñi mooy borom ñaari xar kanam koo xam ne kenn xamul fu dem ci ñoom yaakaar ne ñoom rek ñooy ay xaritam ñoo ñooy ay la am na nit ñoo xam ne dañoo yaatu fu ñu dem mën nañoo bokk loolu bokk mën a jëflante nit ba dem sa yoon la waaye bokk gi mooy yow boo demee ci yéeféer bu buñ nee la ah alxuraan ji daal baax na waaye yéen ni ngeen ko déggee ni ngeen ko fiire daa mett nangam nangam mun la loolu nga naan ko loolu suñu yenn bokk yi la rek dafa am ñoo xam ne ñoo ne ci biir diina ji di teengal boo ñëwee ci jullit ñi ñu ne buñ ne buñ yëkkatee alxuraan ji yëkkati yu baax yi nga ne waaw luñ ci gën a mën a def yitte ak farata ak jom nañ ko def ndax suñu bokk yéeféer yi dañuy xeex boo ñu digg doomal ñu xëcc tuut daal xamal ne jullit ñi ñoo ngi ci dëgg waaye daa am ñu ci biir di def naa nangam yéeféer yi newuñ ci dëgg ndax ñoom xam nañu ci ak lënt lañ nekk bu ko defee naafeq boobu nga ànd ak moom ci waxam jooju it ba tey nga xam ne moom yooyu ci sa jëm bopp yaa ngi toog ci ñetti jataay su ma ko bëggee tënk daal gën koo jegeel nit jigéen fii ci dem ba ay barab ñu ne ko seeral ne Muhammad du ab yonente mu seere ko ñu ne ko seeral ne alquran du wax yàlla mu seere ko ñu ne ko waatal mu waat ñu ne ko seeral ne seytaane amee na garaatu yàlla mu seere ko ñu am luñ ko warlu di ko ko jox soppiwul aw turam nag soppiwul lam doon def waaye pas-pasu xolam moom soppi ko na kooku moo ma gën a tax sax daanaka ma indi thème bi du wax ko ngir xas ko waaye dama ko koy wax ngir mu teel a deltu ginnaaw teel a dëpp te xam na euh, kuréel yooyu ñu bari ñi ci duggoon ngir bëgg a dund faat nañ ci ay gox yu bari armée yu bari fii ci Sénégal boo ko demee da leen fekk ñu tëral leen ci suuf waaye la ñu bokkoon ak ñooñee lañ leen doon wax naan ñoom moom lañ doon ak kàttañ guñ amee ak seen xibaar ni mu mënee gaaw ak ni ñu mën a saytoo àddina ak seen loxo fi mu dugg fu baree foo xam ne day sori su fekkoonte ne bi mën nañoo fegal nit ki dee sax nga mën a dugg ci biir kuréel boobu waaye ginnaaw mënuñu laa fegal dee te dee daal mooy li nga xam ne moo la jaaxal ku la ko mën ta fegal bu ko dugg bu mu la dugal ci mbir moo xam ne ni ëllëg da nga yëg a génn mu tëlëg kon nag sëñ Tuubaa nee na bu la dara jaral bu la dara jaral bu dara jaral wottee sa diina ji wala ngay wut beneen xarit bu dul yàlla nee na bu la ko dara jaral ci àddina bu dund gi neex a neex ba mu jaral la ko bis boo ko defee bu sa biir mettee nga xam ne jaru ko bu sa bëñ méttee nga xam ne jaru ko su say bët mettee nga xam ne jëru ko am na xeeti tawat yoo xam ne bu la dikkee rek nga xam am na ñoo xam ne ndeysaan koy wax dañ leen di gëmloo ne barab yi faj seen kàttan yegg na ci yi nga xam ne ñooy saytu réew yu baree baree bari seen kàttan àgg na ci ñoom waaye dañ leen di gëmloo ne réew ya ngeen nekk jafe-jafe yu ngeen fi mën a am mën nañ leen a dimbali nday joor ak càmmoñ kanam ak ginnaaw ba ngeen am li ngeen bëgg waaye li leen jaaxal ñoom ñooñu ak la ñuy fàtt mooy dee dee bu xasee dikk rek danañ xool ñi dàq mën a faj ñu tiim koo kay ko faj waaye nag yàlla fekk ne yabal na ay malaaka yoo xam ne yow doo leen gis pexe moo def rek ngir génnee jàngoro ji ñu def pexe mu ko raw ngir gën a dugal jàngoro ji doo leen gis ñu lay g leneen mbir rek ñoom nopp yàq nañ la nga doon def moo tax daa am fa am fa xam-xamam yam am booy song songul loo man ki gën a bon ci ñi mooy koo xam ne ni ñaari xar kanam la la nag mooy koo xam ne day dikkee ñi ñii ci anam gi ci anam ga ca def moo tax boo xam ne moom yonent bi ne maa ngi leen di wattandikuloo yàq ab diggante يقعد دي جنت دي لكم ويتلك بباق إياكم وسوء ذات البين فإنها الحالقة نينا لنسة بنيو لول نم آية كرو نينا أبرام باج كرو كرو نينا سخوية بو لنسة دي كتو جي لنسة دي رمباج كرو نيو تدي أب لنسة جلنا جا عبد الله من يوند بنا صلى الله عليه وسلم ألا أنا أجيك نخدم ين خبار نينا تيك دي كو li dàq dagge te lu mu dagg nga dagg xam ngeen mooy lan ñu ne tekk mu ne leen mooy rambaaj diggante nit ñi kon nag boo demee ba mënoo ñàkk ba a nettali na nga nettali loo xam ne ni dana amal jariñ ki nga koy nettali soo mënta ñàkk yóbbul nit ki ay wax na nga ko yóbboo ci anam gam ko waxee soo mënta ñàkk ñàkk jàngat waxi nit it na nga ko jàngat jàngatin wu rafet mbaa nga noppi te saa yoo tasaare ay diggante ba diggante yooyu yàq bise ngi ñëw ci bisi àddina yi boo xam ne ni fi nga koy tàmbali wécc jëm ak moom àllaaxira te dara jëru Sëriñ Tuubaa nee na nag ab ràmbaaj ku bëgg a mucc ci moom nee na da ngay fexe ba bul doon xaritam su la dikkalee daal fexeel ba lu mu waxati bu ko gëm tayit bu mu am lu mu la yóbbu ginnaaw nag mënee su leen a xàmmee waaye daal waat lay doon dana mën a waat lool te it saa yoo ne mën na laa wax ne li ma a wax nii mosuma ko wax nii waaw mën na lay mën na lay askanel loo xam ne day mel ni loolu dana bokk ci màndargam ab rambaajkat ñu dara nag li tax ñu ko fàttali mooy ci weeru koor lañ nekk te bëgg nañ balaa weeru koor lañ jeex sunu borom jéggal ñu mbooleem suñuy bàkkaar te bari na ay yàq-yàq yoo xam ne ni nit mënu koo wéyaale yàlla di ko jéggal yenn bàkkaar yi te bu ñu yàlla jéggalee suñu bàkkaar danañ dund dund gu neex dund gu teey dund gu mucc ayib kon rambaaj ah, ku ko mën a wattandiku nga wattandiku ko ndax làmmiñ rek koy def saa yu làmmiñ xëyee cër yëpp dañuy jooy moom moo leen di laajaat lan ngeen di jooy ñu ne ko yow yow ci sa jëm bopp yaa ngi tiital xamul nu ñuy def ba nga mucc waaye ñun moom mën naa am mën nañoo mën a mucc ndax la xam nañ ne làmmiñ fee boppam da ko jafe yonent bi am feneen fu mu waxee ne bari na ñoo xam ne ni danañ tëmb ci biir sawar di tëmb di di dem ci suuf ak a ñëw ci kaw seen bakkani yi fees dell ak sawar liggitu bi nekkoon seen bopp bi nga xam ne nii day day day day day ma day nga soti ko di aw ci seen bakkan di génn ak xet go bona bona bona neena lol da ñi upp ci ñi dund ci bir sama sen lami mo leen ko yobbe illa xasaidu alsinatihim kon euh neel tek ci yéene nar a nettali boo déggee nag ku ñuy fexel nar ko nor demal ba ci mom nga wax ko tiyaba nga ci am loolu moom boo gëstoo te jàng di nga gis alfan diko wax waaye di nga gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko def la boo gisee kuñ a loot demal ci moom nga laabir ko baax te boo amee keneen ku ko mën a dimbali sax nga wale ko ndax loolu yu aw yu gën ko rëy waaye nag yàq ay diggante daal ci wax moom rek moo taxoon a jub jataay jataay bi jub jataay jataay bi jub jataay jataay bi jub jataay jataay bi jub jataay jataay bi giúp anh thầy giúp anh thầy